enchaîne ak horoscope bi Mado day fanaanoog ay petaawam da koy nandal saa yu xëyee tànn ay signam comme ça mu wax leen ko ku ci euh, tombé ak sa signe en direct nga mën a xam euh, sa bis tey dina neex wala du neex alors euh, tey mardi 18 mars koo ñu koo ñu tànnal signam d'abord. waaw tey nag Pape Cheikh maa ngi la indil taureau vierge ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sagittaire dem tamit bi ci poisson yi. voilà ci jën yi. waaw ci jën yi <laughs> ndax ñoom it dañuy kaas bi naan léeg-léeg dañ leen di <laughs> Euh, dañuy tàmbali ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taureau ñi ngi judd en vingt et un avril jëm nag ba le 20 mai donc ñoom nag ñi ngi laaj pour ñu am déglu bu baax ak seen partenaire ndax la bii rek du téye sëy parce que tu vois parfois euh, bëggante dafay am mais y pas de communication donc on demande à ce que ci biir couple bi mu am communication bu bare et puis ñu ngi leen di waxal aussi projet yi nga xamante ne euh, am nañ ci ay idée fi mu ne nii bu yeboo ñu fësal ko réaliser ko une tey daal seen bés bu propice la donc euh, dinañ am mhm. bu fekkee daal dañu am ay projet nañ ko jéem a réaliser tey parce que je pense que c'est un jour propice pour euh, investir côté projet ba mhm. pare ñi ngi naan aussi seen guddi tey dina neex xaw ma nag ban boor lay neexee <laughs> <laughs> peut-être morning wala xéewal waaw <laughs> of course ku ci nekk daal yaa xam taureaux yi daal nañu mën a neexale wala lekk boolu dof voilà xam nga euh, bànneexu guddi moom dafa mhm. xaw yaatu waaw guddi moom lu ne na ci li bu ñu toogoon ba xaaju guddi rek mu jékki-jékki nekk bëccëg. dina xumb lool. te da ngay waar <laughs> <laughs> donc euh, pour les vierges nag ñoom ñu ngi juddu en 23 août dem ba le deux septembre nee nañ mbëggeel bu bare nag dina bare ci seen kaw waaye euh, mun nañ li nga xamante ne euh, moo di di waxtaan wala di communiquer ñoom it bu baax ak seen partenaire parce que mbëggeel bu bare dina am ci biir mais côté investissement nag à long terme bu yeboo ñu moytu ko dafa mel ni tey ñu fekk si la rek bëgg la boole ci benn tontine képp koo xamante ne vierge nga daal bu ci dugg tey parce que mun nga ci dugg dem ba ci biir am ay tolof tolof ay féete la ginnaaw sax mun na la ci fekk donc il faudra faire un peu attention léegi nag ñi ngi naan aussi yokkute tamit ci seen euh, wàllu vie professionnelle maanaam képp koo xamante ne daal yaa ngi liggéey wala du yëngu ci dara nee nañ que di nga ci am yokkute mais quand même na nga am dégloo bu bare ak li nga xamante ne mooy ki lay jiite. ak déglo waaw ak dégloo kon mooy ak dégloo. <laughs> waaw ñoom <laughs> nag du ñu am du ma ne guddi jàmm waaye ñoom journée bi jàmm nañuy am. journée yi tamit du <laughs> ne xat na ci. exact waaw bëccëg bi dafa bëccëg bi dafa yàgg. waaw lu ne xat na ci bëccëg. lu neex waaye def bëccëg. dégg nga saa sax bëccëg man bëccëg dama koy transformer souvent en nuit ah. ci naka damay tëj samay volets. lépp fermer tout fu ma gis ni euh, xam nga euh, lumière day porox ndollu day pëtëxlu. dëgg la yenn saa sax nga tëj sa néeg mu lëndëm waaye boo xoolee ci euh, suufu buntu bi nga gis lumière bi ni muy pëtëxloo noonu. Mm. mën nga jël sa sarbet rek. sànni ci noonu voilà et ça fait du bien d'être dans le noir souvent. <laughs> donc euh, pour les sagittaires ils sont nés en 23 novembre dem ba ci le 21 décembre donc alors ñoom nag ñi ngi naan que tey journée bu neex bu ànd ak jàmm donc tey nag seen bésu chance la euh, même côté xéewal wala morning aussi dinañ ci ah. am entrée bu dul jeex te sagittaire sérieux ah ben cool donc euh, nee nañ aussi mun nañu noppaliku bu baax ci seen wàllu bureau parce que sinon daal euh, coono wala surmenage mun na ci am donc vraiment tu pèses tes ménages <laughs> nan nañ ko waxee repose ah. tes ménages xaw ma tubaab boobu pèses tes ménages tubaab buyu ma ou repose tes ménages repose des ah, da ngay wàlli yaan ñëw ci ñun léegi ci kër ngéwél gi. non xaw ma xaw ma lan la. bon nañ jàll ko ci poisson yi da nga bëgg la ko ñu jàll ci jën yi. <laughs> nañ def ci jën euh, yi nag ñoom ñu ngi judd en vif 20 février dem ba li nga xamante ni moom moo di le 20 mars nee nañ nag téesante bu bare dina am ak seen partenaire. <laughs> wax beeg xëccoo bi nee nañ daal dina am bu bare ci seen partenaire et le drame est que tout le temps ñu ne même wax boobu moom moo leen di jotale donc vraiment mun nañu jéem a toog waxtaan ba juboo ñu ngi waxaat itam euh, ay complications mun na am euh, mais daal nañ garder seen sang-froid bañu a xëccoo bañ a tiraillé wu teesanteeg dóorante parce que mun naa ñàkk et puis nañ xéewal tamit mun na leen bett donc euh, ñoom daal bu yeboo daal ñu ñu naan. slow down waaw nañ def slow down daal. ndànk rek daal mën na leen ci voilà exact waaw ndànk du métti mooy loolu. ndànk wul de. donc li moo fi gënoon fas tey wala sama ay petaaw lii la ma jox tey ci gisaane. jox la leneen kuris. <laughs> fi ne nii mënu ma gis dara. bu ma ci wax dara sax day leen di ma dégloo xel bu ma jàddee it ngeen jéggal ma it. waaw noo fanaanoo noo noo fanaanoo. tëdd rek di xalaat rek. Ah. parce que statut yi changé léeg bu may bëgg def nii sax rek damay ne ah xaaral wallaay man fi nga samay cër. nga xaw a waaw aussi. Ah. gisoo <laughs> sànq bi ngay yëkkati tànk may ma ma wane daal sax. waaw daal. comme munu ma. waaw teg a seef yi léegi. <laughs> waaw dëgg lii de lii da yombul. <laughs> jël tànk rek teg waaw c'est pas trop facile ah. léegi c'est pas la peine nga siy nit yi de. daal la ma baax. waaw waaw xam nga maag moom bu ñu xëyee le matin dañuy dugg ci ruq. <laughs> ma naan ko tey fi nga génn mu naan ma non sama eau bii la sama montre bii la. waaw noonu wàcc ba ci suuf <laughs> dafa dafa am benn benn benn artiste bu siiw sax alors moom elle avait une bonne alors elle disait à sa bonne bëgg naa booy dugg sama néeg nga def signe. parce que la bonne dafa tàmm saa yu xëyee fajar ay 7 day ñëw rek ibbi néegu néegu star bi quoi rek dugg. Mm-hmm. donc da koy fekk noo xamante ni star bi du ko neex quoi. alors la star lui fait xale bi na ko euh, dama bëgg booy duggati sama néeg boo xëyatee il faut nga def ma signe. ci fulla alors le lendemain xale bu jigéen bi fekkaat euh, euh, sama xarit bi ci biir néegam ibbi néeg bi rek ne ko nii. <laughs> ah mooy signe ba. ay ah signe lañ ko wax. waay ëpp na. <laughs> elle était énervée énervé benn peeru énervé boo xamante ni mu tiit jànk bi taxaw rek ne ko nii. woon ko signe bi di ko nit bu yeewoo ñëw rek di la sourire c'est ah. énervant parce que tu sais pas kii lan lay reetaan. Euh, femme bi na ko mais lu tax nga ibbi sama néeg ñëw taxaw di ma signe nii mu ne ko ah yow kat yaa waxoon su ma ibbeetee su ma xëyatee ma def la signe moo tax mu ibbi def la signe voilà. <laughs> j'ose espérer euh, ki mu daloon xam naa ma nga toog naan Pape Seye Diallo mii moo mën a meew <laughs> lu mu yëg mu siiw mu ngokk merci beaucoup Mado donc demain nga ñëwaat ak yeneen i euh, signe pour euh, accompagner suñu xarit yi nga xamante ni ca fajar ba tey euh, yéen a ngi àndandoo ak ñun ñu ngi leen di xaar ah 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 xanaa enchaîner tout de suite ak téléachat bi juste vous rappeler que produit yi nga xamante ni ci laay bëgg a dem